ci ndigalu ñu sant d'abord suñu borom ci fekkee bu mu ñu may ñu fekkee ko ci weeru koor bi nga xam ne weeru yërmande la ñu ñëwoon euh, indi ndimbal boo xam ne ci turu délégation bi ma àndal nga xam ne soxna Kiné Niang ak soxna Kadio ñoo ko taaral ak Modou Mboup ak euh, jëwriñ Malick Sène ñii di magu Cheikh Alassane ñu ñëwoon indi ndimbal loo xam ne ay nak yu bare la ak ay denrées alimentaires donc mu loon ko prison Sénégal yëpp yi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru kon bi ñu xëyee ci suba ba léegi ci loolu lañ ne fii la ñu terminé léegi ci camp euh, mu nekk koo xam ne moom ku xam mbiru kaso la parce que bu leen fàtte ne mës na nekk camp Cap Manuel euh, fa lu ëpp at kon ku xam mbiru kaso la ku xam réalité kaso la nag nekk loo xam ne lu metti la si ki ñu denc waaye tamit ci waa këram nga xam ne bés bu jot mu ngi paas paas bi ak dem bi visit bi rek dafa métti sans compter nga war du ko toggal di yóbbu moo tax moom mu jàpp ne doon sax ci korité gi mu am lu mu leen defal loo xam ne wax dëgg yàlla dina xaw a famille yooyu mais également dafa nekk nit koo xam ne tam ku xam ni kaso méttee la te loolu dafa nekk ci biir programme am kon moom ci double casquette am chef religieux mais également chef de parti il avait jugé nécessaire ñëw kon foofu tamit am na benn borom xam bu mag mu daan reetaan loo ñi ñi nekk France ñu koy wax Coluche nee na bu amoon xaalis du tabaxaat école parce que leer na ko ne du demati école mais dina tabax kaso kon pour wax rek ne kaso jombul kenn moo tax rafetoon na trop ci weeru koor gi ñu bàyyi ñi ñu leen di ñaanal tamit ñu gaaw ñi bi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci biir këram fekki njabootam fekki ay doomam fekki jëkkëram jigéen ñi tam dem fekki seen i borom kër ak seeni doom mais également ñu leen di ñaanal ñu amaat une réinsertion bu normale ci biir société bi lol moo doon kàddu yi ñu ngi leen di gërëm. mais dimbal bi ngeen andi ni, lan la ak yan prison lañ ko yóbbu. bon euh, prison Forbé du prison bu mag yóbbu nañ fa benn nag yóbbu nañ fa macaroni ak soble. prison Cap Manuel aussi du prison bu mag mooy prison yi gën a néew li ñu denc le yóbbu nañ fa benn nag ak soble ak ndox. Euh, prison bu mag bi nga xam ne moo nekk 100 mètres euh, yóbbu nañ fa repas pour 1000 personnes en tout cas yóbbu nañ fa macaroni ak ñaari nak ak soble bu bari ak ndox quantité bobu aussi mom lañu ñu indi fii ci bir camp cheikh bi yóbbu na ndimbal ci prison yi te ku ko xam-xam ne jot naa def prison lu ëpp at est-ce que lolu mo gën tax mu jàppale prison yi alors que mënoon nako yobou yóbbu aussi euh prison yi ben facette kessé la bu ñu jógee fii ci ben pouponnière lañu ñu jëm kon social mom social da koy dund euh, euh cent soixante jours sur 365 jours li c'est une des facettes du social bu muy def tey volet prison il est jëloon ak pouponnières mais chef lui, il est tout le temps dans le social. merci je vous remercie merci.